ay ovli lañ comme sama professeur Mbaye Mbaye Mbaye Sidi mbay lu muy faral di wax nous sommes de Sénégalais avant tout sénégalité ñooñu moo ñu moo jiitu lépp mhm. donc équipe nationale bu gagné forcément ñu kontaan très bu ñu nekk bu nekkee si pression yi joueurs yi forcément ñoom ñooy pression mais ñun tamit dañuy amaale pression très bien ñu ñëw léegi léegi ci euh, jàngat bi ak Abdoulaye Thiam on <laughs> tey Malick Thiam nekk fi yow yaa ko remplacé mm. chéri xaw ma kan moo la wax sa baat <laughs> sa baat neex na eh, mais wi di di temps voilà Chérif ayo jàngat bi tey Abdoulaye Thiam lañ ko euh, moo ñu ko fas yéene defal maa ngi koy wax sànq bés na tey euh, nëga ni daaw euh, Sénégal dégg wiiw comme ni ñu koy waxee ren également le 4 février deux jours deux jours avant ñuy fêter anniversaire boobu chan bi Euh, sunu gaynde yi noonu ko également ñoom it sur le euh, toit du football euh, africain. waaw ñu gërëm laay déjà ci taxawaay bi ku nga xam ne mooy rédacteur en chef journal bi du Sud Quotidien xam naa bi mu bouclé yàggut xëy suba encore xëy si fajar bi daanu fekk ngeen di nelaw mais bis bee ko laaj ndax anniversaire bi at a ngi nii déjà ñuy célébrer premier sac Sénégal ci Coupe d'Afrique ci mag ñi démb le 4 également gone yi def ko. j'ai vu record wax kon le grand chelem mu mel ni kon footballu Sénégal mu ngi ca njombaxtal ga ci Afrique. effectivement je crois titre bu am solo la parce que euh, munoo woon xaar cadeau bu weesu bi. Mhm. parce que quand même une jour à deux journées quarante huit heures célébration suñu premier sacre continental. fàttali aussi ñu ngi daw si ginnaaw sacre bi cinquante sept ans. cinq mooy première participation bu Sénégal. Mhm. te li ci gën a métti mooy dafa am li tubaab di woowee ay symphonie inachevée yu bëri. Mhm. par 65 sooy waxtaan ak nit ñi dañuy naan Sénégal mu ëppoon équipe bu baax. 68 ñu ne la même chose. 86 moom ñu ne la c'est la meilleure équipe. quelle 86 80 waaw 90 boo ñëwee ñu ne la dañ tombé ci Algérie demi-finale waaye waroon nañu ko jël. sauf en 92 peut-être en 94 2000 on dit la même chose. la même chose donc y a eu tellement de symphonies inachevées gars yi yaakaar ne da nga koy gañ gañewoo ko donc bu il fallait le faire comme ni ko. centre bi waxee léegi léegi ay loofe. Euh, bu ñëwee ci coulisses yi nag parce que quand même gisoon nañ ko c' était pas facile au début ah. premier mm. match yi Sénégal déjà sax daanaka météo woon na ak Covid bi ñu nekk dem final gagné ko quand même face à l' Égypte coulisses yi un peu raconté nous. bon coulisses yi defe naa mu tàmbali fii sax parce que yëf yi début bi dafa xaw a jaxasoo. parce que bii mooy première compétition bi nga xam ne en tout cas depuis 2000 euh, kii mun na ko seede bi Sénégal di dem ci Coupe d' Afrique. te waaju loolu boppam préparatif amul. Mhm. maanaam dañu amoon benn euh, dëkk bi ñu jëloon. naan dañuy dem préparer ci Rwanda la ñu waroon dem Kigali. Mhm. ñu jékki-jékki FIFA génne benn décision boo xam ne mu kenn mësu ko gis. Mhm. parce que dañu bëggoon soppi Coupe d'Afrique bi mu bañ a am. ndax pression club européen yi. finalement ñu ne club européen nañ téye suñu seen joueur ba le 3 Aliou Cissé changé donc programme ñu bàyyi étape bu Rwanda bi on était obligé de partir directement bi ñu aussi. ñu bàyyi fii environ euh, huit wala dix jours. Mm-hmm. te surtout li ci gën a métti mooy c' était jours cadre parce que boo xoolee premier tour bi yëpp daanaka Aliou Cissé football na ko avec environ six wala sept jours yoo xam ne c' la première fois ñuy jouer match coupe de coupe d' mm-hmm. donc loolu nekkoon lu lu métti métti métti ci ci ci jours yi ñu demoon aussi si benn dëkk boo xam ne mu ngi Bafoussam ci zone boo xam ne. attitude la woon te loolu defe naa bu ñu demee ba egg quart finale am na lu mu yokk. ci ci jour yi. Mhm. début bi xawoon nañ tiit parce que dëkk. kii bu la kii bu la wax ne tàngoor bii la yi la. Mhm. yaa ngi dégg joueurs yi bëri di ko wax mais quand même ci mujjantal ji. franchement on s'est rendu compte que effectivement bu ñu ñëwaatee ci basse altitude bi. yokkoon nañ leen doole bu bëree bëri man li ma si gën a retenir surtout ci joueurs yi li ma gën a marqué. c'est pas l'équipe la plus talentueuse. Mhm. loolu. kenn du ko du du ci werante mm-hmm. mais dafa amoon lu nekk si ñoom nekkul woon peut-être si ñeneen ñi mooy humilité surtout aussi le leader technique mu noo nekk euh, loo am loo loo bari titre bëri titre mm-hmm. loo bëri caprice bari caprice boo ñëwee si équipe nationale Sénégal nga gis Sadio Mané mm-hmm. mu nekk leader technique bi mu am nu mu mel tu es ah de faire profil bas. il faut que ma ma dund. ma dund ko bu baax a baax. et donc c'est l'un dernier à donc et puis bu duggee si vestiaire bi boo waxee t'as l'impression c'est Kalidou Koulibaly qui parle moo nekkoon leader naturel soxla woon mooy def brassard bi. Mm-hmm. di bëgg Sénégal. Eh, am idée reçue yu mu doon jot. africains yi boo ñëwee nii la ñu mel sénégalais yi boo ñëwee lépp nag di daanu di daanu di wadd benn par benn donc loolu franchement man ku boobu noonu je me suis dit woon jaar feneen te duñ ko gagné. Mm-hmm. oui justement euh, comme coupe bi c'est vrai que y a y a eu un groupe quand même euh, qui a travaillé pour sa mais aussi am na individualité boo xamee ni. Mm-hmm. ça été sa compétition muy Sadio Mané. Mm-hmm. te il s'est relevé de nombreux échecs balaa muy yegg fii. Coupe d'Afrique bi euh, en un moment donné ni mu jëlee woon euh, les choses en main tu te disais que là c'était le bon moment. Sur, sur, surtout contre le Cap-Vert boobu itam bëgg ngeen xam coulisses yi. Euh, quand il sortait sur blessure <laughs> voilà. oui oui xam nga yooyu yëpp man man Sadio yenn saa yi quand je parle de lui gars yi naan non chauvinisme la wala daf ko xam effectivement loolu yëpp am na mm-hmm. mais quand même dafa nekk jour hors norme. man daf may jaaxal sax yenn saa mm-hmm. parce que généralement dañ ko interroger woon ci ballon d'or bi mu ne il se demande Sadio na nan lay def je ne pas qu'il a la trempe de Lionel Messi en termes d'humilité et autres mais généralement star yi dafa am leneen luy dugg ci ñoom. Mm. dañu nekk ay nit yu bizarre yoo xam ne bëri caprice ak yooyu noonu mais Sadio très franchement peut-être éducation bi la. loolu joué na ci lu bëree bëri bëri mais ci équipe nationale Sénégal dafa tolloon fenn foo xam ne il avait besoin de marquer moom son histoire parce que wax nga léegi match bu am solo match boobu noonu généralement ku ko gaañu mun nga ci profité waale sax nangu li FIFA teg ci sa ndog nga dem mais yow nga taxaw nga leen leen gën a indi leen teere ma bind mhm. man maa ne damay football lu ma ci munta dal man la donc loolu sénégalais waruñu fàtte Euh, bafu sam yëpp def ko def ko adopté. mu nekk leader de l' équipe. et man dañuy wax match boobu effectivement am na solo mais surtout c' est la finale. parce que Sadio soo leen xoolee bu baax. Mhm. penalty bu mu raté lui a fait perdre complètement le match. il était passé à côté. Mhm. il avait envie de montrer aux Sénégalais man maay boot équipe bi. Mhm. mais li ma ci gën a euh, jaaxal trop trop trop trop parce que vestiaire yi tamit bu mu je match bi bu mu jeexee dem naa ba ci vestiaire yi di ko laaj mais lu tax nga jël penalty bii nga dóor ko parce que nañu wax de dëgg. beaucoup de Sénégalais commencé à dire mais pourquoi il prend la balle pourquoi il prend la balle mais lui foofu mooy wane ne nag li ñu doon wax ne mental amul mental amul c'était un joueur qui avait un Et grand mental. qu'est-ce il me dit non parce que donc mu ngi noonu entraîneur yi ci la bokk exactement exactement parce que gis nga jooy yi mu jooy foofu et jour jour kii bi peut-être xaw ma ndax yéen télé ngeen ko doon seetaan ndax gis ngeen ko mm. joueur yëpp

mois Abdoul Diallo maa doom jëli ko. Hmm. ne ko kaay nekk parce que tu peux pas voir ça le réalisateur. li rek la wone mais Abdoul Diallo moo dem ci moom xëccaat ko mu indi ko mais la pression était tellement forte que Sadio ne pouvait plus rester là. Hmm. surtout nag bu bu na raté. penalty bi c'est pas possible j'ai à la quatrième minute sénégalais yëpp ñu yaakaar ci man ma ñëw raté penalty et puis il a le courage de prendre cette balle. je dis mais non attends c'est pas possible. mu defaat ñu ko encore le 29 mars. contre ouais, l'Égypte effectivement contre l'Égypte encore éliminatoire ouais. et ce qui est extraordinaire ñun quand on a perdu le contre contre contre biir avion bi ñuy ñibbi ma ne ko mu ñëw rek mu gis ma rek jubal si man. président bu leen ragal dara man maa la ne dañuy dem ku du monde. ma ne booy yow lay wax nii donc <laughs> c'était vraiment fou waaye des anecdotes comme ça y en avait y en avait beaucoup les mm. Kalidou Koulibaly mm. surtout aussi généralement les relations extrêmement tendues entre la presse et Aliou Cissé mais Aliou pour la première fois a accepté mm. de se déplacer ñëw fekk ñu ba suñu hôtel bi ñu nekkoon mm-hmm. quarante questions il a répondu 40 questions en dehors de la réglementation parce que FIFA CAF plutôt dafa ne su veille match da nga ci obligé de parler mm-hmm. après le match tu es obligé de parler mm-hmm. mais moom en dehors de cette réglementation il a accepté de venir mm-hmm. parler à la presse de son pays exactement aussi l'illustration euh, de cette force de groupe comme ni nga ko doon waxee oui i yaa yaa tout c'est-à-dire communion bi dafa dafa dafa extraordinaire woon donc euh, on sentait ça au niveau de l'équipe fédérale parce que benn moment quand affaire li s'est réalisée quand tu te remémores de tous ces tous ces tous ces souvenirs. Mhm. tu te que non donc mhm. c'était la bonne on pouvait pas rater c'était pas possible. Mhm. parce que aussi euh, da ngay ni ñu tàmbalee comme ni ñu waxee léegi premier match Aliou Cissé teg na ay sept jours huit. sept jours yoo xam ne. c'est ñoom ñëpp ils étaient out. le premier gardien le eh, n'était pas opérationnel le deuxième n'était pas opérationnel tu mets le troisième. tu te dis est-ce que le troisième bi sax gënu aay sax les deux premiers. Mm. donc loolu yëpp il y avait tellement de choses qui sont greffées dans dans dans cette affaire là que tu te dis qu'on ne pouvait pas mu amoon benn benn benn harmonie entre la fédération entre l'État du Sénégal aussi qui a accompagné qui a mis énormément de moyens et les joueurs qui ont compris que ce, ce tournoi là était leur tournoi il fallait le faire surtout encore nga gagner Égypte sept mm-hmm. fois champion d'Afrique nga gagner Égypte mm-hmm. man même 92 sax dama ko fàtte j'étais encore jeune j'étais au collège mais je me suis victoire bi moo gën a neex parce que Cameroun boo xoolee xañ na la kan kan 2017 ñëw fa sa dëkk fii en 1992 mu éliminé la nga dem 2002 fii juste à la porte d'à côté ak Bamako il te l'empêche encore mm. di man revanche bi ma mënoon am c'est non seulement battre l'Égypte qui est la, la nation la plus titrée mhm. mais gagné ko fan gagné ko ci biir Cameroun yóbbu sama dëkk donc la victoire elle était vraiment énorme il mm. fallait pas il fallait pas rater ce soir là ce 6 février il fallait pas rater ça aussi en dehors euh, de euh, équipe nationale ak encadrement bi <coughs> gis nañ tamit euh, organisation bi nga xam ne donc ko dirigé mooy ANPS mhm. daanaka mën nañu armée la ñu déplacé woon <laughs> ñoo xam ne il passait jamais aperçu ba ay nit sax dañuy jaaxal mais au Sénégal comment est-ce qu'on peut avoir une organisation de journalistes aussi unis euh, maanaam nekk benn ci compétition parce que si ñoom rek am ah, man moom fu ma dem gis fa compétition li may gisee journaliste sénégalais du ma ko gisee beneen. <laughs> loolu moom sant yàlla rek d' il faut remercier les patrons de presse. qui mhm. euh, parce que c' est eux d' abord qui les journalistes. Mhm. ñun au niveau de l' ANPS juste une organisation. Mhm. une organisation boo xam ne tàmbali nañ ko depuis 2002. ñuy defar lu ñuy woowee maison de pour mettre les journalistes dans d'excellentes conditions parce que li jiitu mooy nga fexe d'abord def ce qu'on appelle une mission de prospection mhm. nga jiitu leen comme mhm. euh, ñuy lekk lu ñuy lu ñuy reeree et tout mhm. donc ça c'est une véritable machine tu es tu es dedans xam nga comment ça ça ça se fait du Sénégal les de l'équipe euh, euh, loolu moo dem sax ba léegi africains yi gis loolu yëpp nee ñu euh, nañu porter même suñu candidature au niveau de la IPS Afrique. Mhm. donc loolu moo ñu accompagner parce que bi ngay compétition bi ngay wax ni on était à part le pays hôte parce que c'est le Cameroun. Mhm. il pas un contingent mhm. aussi important. maintenant nag football bi c'est vrai yéeg na naka lañ def ba rester au sommet. ça c'est une excellente question euh, ñëw ci sommet bi am na solo mais rester là loolu moom moo gën a difficile. donc mais quand même je pense que nous sommes dans une excellente dynamique. Mhm. parce que boo xoolee bu baax fu ñuy tàmbali actuellement léegi dañuy nekk di savourer suñu ay victoire rek. Mhm. mais gars yi dañuy fàtte fan lañ jógee wax naa la léegi léegi. depuis 2009 Augustin mhm. Senghor est là donc il y a ce qu'on di woowee rançon de la stabilité. soo xoolee Aliou Cissé mars 2015 la nekk entraîneur. jamais un entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal n'a fait trois CAN d'affilée. le seul qui a eu mooy euh, mooy euh, euh, Claude Leroy da nga ko ne Caire Sénégal 92 moo tax moo tax mu yóbbu ñu Algérie en 1990 nga accompagné ko tous les autres képp ku dem Coupe d'Afrique boo ñibbisee quelle que soit ta performance même Abdoulaye Sarr def na performance mm-hmm. demi-finaliste mais bi ñibbisee dañ leen ne yéen ñëpp et bu ñuy dégagé généralement sax du ñu jëm si entraîneur bi nekk dañuy dégagé fédération dégagé entraîneur dégagé sax président euh, président <laughs> yëpp dundoon nañ ko là cette dindi cooptation parce que communauté de normalisation bi nga doon wax loolu moo ko indi. mooy des personnes ressources yoo xam ne si état bi lañ doon jógee ñu ñëw ci fédération là le président il est élu au suffrage universel direct. c' est les clubs la population de football moo lay fal donc depuis 2009 ñu nekk stabilité ñu jël aussi un entraîneur équipe nationale bu Sénégal bu nekk sénégalais. Mhm. accompagné ko depuis 2017 depuis depuis 2015. ba léegi. je crois que c'est c'est c'est ça qui fait aujourd'hui d'affilée ça aussi c'est un exploit. ah voilà waaw ah, mais laata ñuy dem retour sur euh, ce sacre quand même euh, d'Alger mu nekk quand même euh, quelque chose d'exceptionnel. ya bariwul sénégalais boo xamee ni à l'entame de cette compétition dina doon wax ni équipe bi day gagner CHAN bi et pourtant malgré difficulté yëpp. chat nga xam ne dafa jafe préparé parce que jour mën na génn à tout moment mm-hmm. et ils l'ont fait oui surtout nag euh, aujourd'hui li ñuy constaté mooy que ni li manqué woon Sénégalais léegi mu nekk si xale yëpp mooy détermination et engagement ku seetaan final bi xam ne la n'a pas existé très tôt généralement teg tànk mm-hmm. football détermination wala les quatre les quarante mille cinquante mille spectateurs ci gradé bi la ñuy des. ils vont pas descendre sur le terrain. ça daf ñu manqué woon depuis très longtemps comme li nga wax y' quelqu'un qui a misé un franc CFA. ci équipe nationale bi surtout munoo toog douze ans deux mille onze Soudan deux mille onze lañ gëj a dem nga jékki-jékki nga dem mais xale yi li ñu wanee keroog franchement euh, li ñu leen mën a def. mooy gàcce ngalaama nañu continuer sur cette dynamique mais maintenant ce qui nous reste aujourd'hui nous avons trois trophées majeurs mhm. ci compétition beach soccer mu ngi CHAN coupe d'Afrique bi mu ngi fii mhm. fi des mooy ligue des champions mhm. wala coupe de la confédération ñu remporté ko ça c'est au niveau des clubs et on a un programme national le président l'a dit il va falloir que tout le monde l'accompagne pour que vraiment que le football 4 euh, février également euh, euh, Alger sunu gaynde yi nos locaux quand ñoom it daal koy jël pour une première fois et puis suñu gaynde beach soccer yi nga xam ne quand même euh, tàmmaloon nañu euh, Coupe d'Afrique des Nations naka noonu merci beaucoup Abdoulaye on te remercie tu restes avec nous puisqu'on va parler football ñu dalal suñu invité Mayacine Mar directeur technique nationale sànq maa ngi eh, eh, Cheikh am na ñu ko def sonnerie à ah bon <laughs> man ak Cheikh bu ñu koy seetaana dañuy mel ne dañuy dañuy tiitaat ba léegi da ngay jàpp ne sax oh, oh, dina ko jàpp Mayacine ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Infos maa ngi leen di fay. di mm. nuyu euh, ñi ma fekk ñëpp. Mm. Euh, surtout